calculer lii daanaka mot na weer kon lii boo ci tegaatee weer loolu li muy tekki dafa mel ni que kon Ousmane Sonko ñoom dañoo bëgg ci seeni pexe dégg nga fekk euh, dootul munati jël ay fiches dootul dootul munati dem parrainage def parenage donc maanaam tricherie la ret dañuy foow ak askan wi dégg nga mu doon nag loo xam ne ñu ngi koy naqarlu lool. procédure bi su fekkee ne que tribunal Dakar atte na ko. am nañu sañ-sañ dellu si waat ci tribunal Dakar ju ñëw dellu si waat fii ci tribunal bi te loolu lépp boo calculer euh, ah lu ñu ko gaawal gaawal gaawal gaawal gaawal dégg nga lu koy gaaw a gaaw a gaawal loolu bu ci war na mën a jéggi diir bi nga xam ne Ousmane Sonko war na mën a def ay parrainage